Baro. jërëjëfaat Serigne Saliou jërëjëfaat waaw di sant rek ci ndigal lii ñu ñëwoon jëfe si ko muy ndigalul Serigne Saliou Thioune xalif général de Thiantakoon joxoon ma ndigal boole woon maag mbokki taalibe yi eh, fii ci Jannatul Mahwa ma ànd ko ak sëñ Babacar mbay ak mbokki taalibe yi nekk fii ci tuuba eh, ñëwoon joxe si xari tabaski yi nga xam ni moom lay def at mu jot te ren mu koy doog a tàmbali ginnaaw sëriñ bi mu wax ne nañu ñëw ci sëñ Cheikh jébbal si ko ab liggéeyam biñ dikkee fekk nañ fi sëñ Cheikh dalal nañu waxtaan na ak ñun soññaat nañu soññ boo xam ni soññ bu ñu neex ci jëm rek ci liggéeyal sëriñ Touba ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi te ndax ñaan gi mu noon ñaanal danoo tàmbalee gis yokkute yi ndax eh, lii nga xam ni mooy lu jëkk ci ginnaaw sëriñ bi mu demee nii mu demee ah, ak cant rek la jural ndax kat lii mooy wane rek ne sëriñ tubaakat kat waxam jam waxoon ne teyam ju ne day gàcceel démbam feeñ na ci jëf ji tey te loola kat noo ko koy sante ndax lépp mooma di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te it yàggal fi Serigne Saliou Thioune mii nga xam ne mooy xalifa Serigne Béthio ba liggéey bi mu sumb mu gën koo man te ànd ko ki rakkam ak mboolem taalibe yi ak jërë ngeen jëf. sant kaldı. Neyse. Bak Logileşi an. Ben de bir şey yapmıyorum. Ne bu uçakta şu gidip yanında bir bölüm tutamayacak kızı. Kasa işi. Logileşi bu oğlum yanla. Dünyanın yanında da yakın. Bunlar oğlum tüy. Kime tetiyor sayı bekliyor. Tetiyor bak. En önemli şey. Şimdi bir uçuydu. muy déwén ak weer muy déwén ak wax muy déwén jërëjëf Balla. nee na da laa gëj a gis. waaw waaw waaw waaw waaye xol bi gënul ci yow de Mbacke.

nga xamante ne fii ci tool Ano lam? Lam. Ano lam? Lam. Lam. Lam. Sei certo. Posso sei certo? Thank you. m a a s am na b o k k u r a di fàttali Serigne Saliou Mbacké Bamba Serigne Béthio jàmm Serigne Saliou la yërmandeem ko di wasaaroo ci waaw ngeen ko gisee rek moom liggéey boobu yi ñu tàmbali ko fii ci kër Serigne Cheikh Mbacké ginnaaw bi ñu jotee ndigalul Serigne Saliou xalifa général bi ñu yabaloon ñu ci sëñ Cheikh Mbacke ngeen ñu yóbbul ko xarit tabaski bu ñu yeggee dégg ngeen ni ko sëñ Cheikh waxee nee na kat noonu nii ko sëñ bi daan defee ci kër yi nga xam ne mooy kër yi daan yóbbu ay teraanga nee na loolu day lu am solo ndax day ak rafetal te ak rafetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax bi mu bi mu ko fi bi mu fekkee yéeféer yi sax bi mu fekkee kéeféer dafa dafa leen a bàyyeeg rafetal boobu ba noppi dolli leen rafetal booba dafa war nañu ko wéyale noonu yi ko sëñ Mountakha digle moo waral ñu yegg si fii ci sëñ kër sëñ Mountakha fekk mu teeru nu ni mu nu teeru ak ni mu nu ba noppi it soññat xamal nu it ne li fekk ñu ngi tënk ci ndigali Serigne Touba lii nga xam ne noonu la yoonu murit di doxee te mu digal ñu ñu ne ci nee na li fekk ña nga ca loola rek moom xolam set na nee na ak ñaanam ci ñun du wàcc mu ndax li mu ñu yéene ndax digganteem ak sëriñ Béthio nee diggante boobu da koo sàmm te bëggu dara yàqu moo waral ak ñaanam ci ñun saa su muy yokk gis ngeen ni mu ko waxee ñoo santaat nag bu baax tey ñaanal sëñ sëñ Mountakha mii nga xam ne moo fi jógal sëñ Touba yàlla yàggal ko fi mu bëgg a yóbbu yoon yàlla kattanal ko wéral ko mu yegge ko ñoo ngi santaat bu baax di ñaanalaat sëñ Saliou Thioune mii di xalif général di Thiantagoum yàlla yàggal ko fi te bàyyi ko fi yàggal ko fi lool mu ànd ko ay asalaamaaleykum wa rahmatulah. am question amul question. Babacar Mbaye mooy sëñ Mountakha bi ñu ñëwee. mbooloo mi bari na waaye ci biir néegu bopp. biir barab bi nga xam ne. fi lay noppaloo fi la ñu loolu. cofeel bu mu am ci sëñ Saal ak yaakaar ju mu am ci moom dafa na ko dana yaakaar am na ko ci moom ak cofeel moo tax mu recevoir na ci yaatu ñaanal ma tam dafa ma tax si diggante sant nañ ci bu baax waaw sëñ Saal moom moom mu bëgg nañu ñun taalibe sëñ Béthio yi